laqin lisaani waxlulan minhu looqad wajcalhu zakiran wa abad wajcal kalaami rashidan wa murshida nawwir wa arshida mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu àq di leen baal bëgg ñëw comme ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci suñu jotaayu xam-xam yi di ci fàttalante ndoo ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu te ñu toll ci téeréem bi nga xam ne moom la tudde maxaaliqu niiraani wa mufatihul jinaani suñu bind bi mujj nag ñi ngi doon wax ci gàkk-gàkk yi nga xam ne euh, regg mën naa tax euh, nit ki am ko maanaam gàkk-gàkk yi nga xam ne regg moo koy waral euh, ñu limoon ci juróom benn yoo xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu leeral nañu ne ak regg ci lu dagan day waral nit ki am gàkk-gàkk yooye euh, te ñu limoon ca lu mel ni wowalu xol limon ca lu mel ni yàq gi muy yàq ak am xel waaye limoon ci it lu mel ni diisal gi diisal cëri doomu aadama yi ba du sawar ci jaamu yàlla eh, ak yeneen yi nga xam ne moom la ca sëriñ bi yëpp ci suñu bind bi weesu ci tomb boobu la ñu nekkoon ak yéen suñu bindu tey day continuer rek sëriñ bi radiyallahu anhu di continuer di wax ne wa talabul xalaali mooy sàkku lu dagan sàkku lew fardun farata la yantami joj dana askanu li kulli muslimin ñeel bépp jullit bi xayri wahamin ci lu dul njort maanaam ci lu dëggu sëriñ bi radiyallahu anhu nee na sàkku lu dagan day lew faratala ci jëpp bépp julit mu war koo def waaye mu war koo taxawe bépp jullit war naa taxaw ci sàkku lu dagan waaye war naa def yitteem jëpp ci sàkku lu lew ngir la muy dunde mën a doon loo xam ne lu lew lay doon Euh, ndax sàkku lu dafa doon loo xam ne euh, mooy jural nit ki euh, tey bu jaamoo suñu borom subhanahu wa taala jaamu ga mën a nungu waaye mooy jural nit ki bu ñaanee suñu borom bi subhanahu wa taala ñaan nga mën a nungu ndax am na jenn waay joo xam ne dafa ñëwoon ci yonente bi sallallahu dox ci désert bi ba pënd ñëw di sàkku si ñaan waaye yonente bi sallallahu ne gis ngeen waa ji ak li mu daj lépp euh, te jëf yi nga xam ne moom la doon jëf du ci am dara waaye coono bi mu doon sonn di wut si ak ñaan ak euh, jaamu ci suñ borom subhanahu wa taala yëpp euh, dara du ko ci am ndax lan ndax moom li nga xam ne moom la doon lekk di ko dunde limu mu doon sol limu mu doon naan léppam dafa xaram maanaam ci anam wu araam la ko doon fàggoo di ko jëfandiku moo tax loolu muy ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala yàlla du ko nungu waaye yàlla du nungu jëfam kon li nga xam ne moo tax suñu borom bi subhanahu wa taala nunguwul jëfam lenn rek la mooy ñàkk a dagan waaye ñàkk a dunde eh, lu lew moo tax sëriñ bi doon ko waxaat ca mu nawér ne man bil xaraami abadallaha fala yakunu illa nadiman mumsafila képp koo xam ne day ci lu araam nga jaamoo suñu borom bi subhanahu wa taala sëriñ bi radiyallahu anhu nee na doo nekk kudul koo xam ne kuy réccu ngay doon waaye doo nekk kudut koo xam ne ku suufe ngay doon maanaam ku lekk lu araam ba pare wëlbatiku di jaamu yàlla jaamu ga ngay jaamu yàlla du la jariñ dara ndax lu araam li nga xam ne moom nga jëfandikoo te suñu borom bi subhanahu wa taala araamal ko waaye suñu borom bi subhanahu wa taala uh, tere ko moo tax yonente bi sallallahu alayhi di ko wax ci xadis ne bu ñu jëlee ci anas ibnu malik mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne talabul xalaali waajibun ala kulli muslimin sàkkulu dagan day sàkkulu lew warteef ci bépp jullit maanaam bépp jullit suñu borom farataal na ci yow ngay sàkkulu dagan waaye ngay sàkkulu lew ngir soo ca jugee boo jaamoo suñu borom bi subhanahu wa taala jaamu man laa jariñ waaye dundalu leew dana tax dunduk nit ki mën a barkeel waaye dana mën tax mu am ab cër ca suñu borom bi subhanahu wa taala abubakar ni siddiq radiallahu anhu wax ne jële na ci yonent bi saa sallam wax ne laa yadxulul jannata jasadun xusiya bil xaram maanaam ki nga xam ne aw yaramam day ci lu araam koy dundale kooku day du tabbi àjjana mukk maanaam du tabbi àjjana mukk mukk nga xam ne li muy dundale aw yaramam ci lu araam rek la maanaam lu aram lay jël di ko dundale aw yaramam lu mel ni jël di ko dundale aw yaramam lu mel ni alali jàmbur joo xam ne daf ko fëkk ci moom lay dundale aw yaramam wala yeneen alal yi nga xam ne dafa araam lu mel ni di jaay loo xam ne suñ borom subhanahu wa taala ko araamal lu mel ni sàngara wala yu aju ci yooyu nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala daf ko aramal nga jël ko di ko jaay ba pare di ko dundale saw yaram yooyu yëpp day soo koy def na nga xam ne xadis bi nga xam ne moom la Abu Bakr ni Siddiq solo te jële ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama hadis boobu euh, man naa dal ci sa kaw euh, fonk gu suñu borom bi subhanahu wa taala fonk euh, dundelu dagan ak dundelu lew loolu moo tax mu digal ñu ñuy jëfandikoo li nga xam ne mooy jaay njaay moo xam ne njaay mu dagan la loolu moo tax suñu borom subhanahu wa taala daganal jaay ak jënd waaye daganal ko ci anam boo xam ne anam la woo xam ne jullit bi daf ci mën a sàkkoo lu lew waaye man cee moytandiku li nga xam ne mooy riba moo tax mu ne wa axalla allahu albayaa wa xarama riba suñu borom bi subhanahu wa taala dafa daganal jaay waaye bi mu daganalee jaay ba pare dafa wëlbati ko kon li tax suñu borom bi subhanahu wa daganal jaay mooy lan moy def ko daganal ngir bëgg doomu aadama bi fa muy fàggoo mo fay muy mën a fàggulu lew waaye bu fàggulu lew ba jëfandikoo ko euh, bu wëlbatikoo topp topp ga man koo jariñ kon loolu buntu la boo xam ne day tijjil nit ki mu man di jëfandikoo lu waaye day tijjil nit ki mu mën a xam euh, li nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala daganalal war koo def euh, di war koo jëfandikoo waaye mu xam itam yi nga ne moom la ko suñu borom subhanahu wa te jëfandikoo ko di doon loo xam ne euh, du lu baax ci moom waaye du lu koy juróom njëriñ euh, sàkku lu dagan loolu ak sàkku lu lew loolu tax suñu borom bi subhanahu wa itam euh, di ñu wax ci ginnaaw julli ajjuma ne saa bu ngeen xamee ne pare ngeen ci julligan ne ngeen tasaaroo ci kaw suuf si dem fàggu ji ci xéewali suñu borom bi subhanahu wa taala fa iza xudiyati salaatu fantasiru fi l ardi wabtagu min fadlillah saa boo xamee ne julli gi jeex na rek na ngeen dem tasaaroo ci kaw suuf si ku ne fa nga mën a dóor sa boppu dóor sa njëba man faa fàggoolu dagan lu lew loo mën a dunde nga dem uh, wuti ko ngir loolu mooy li nga xam ne mooy jariñ doomu aadama bi niki noonu tamit suñu borom subhanahu wa taala di waxaat ba tey ne yaa ayyuhan naasu kullu mimma fil ardi xalaalan tayiban yéen nit ñi na ngeen lekk ci li nekk ci kaw suuf si waaye lu dagan li nga xam ne moom la def ci kaw suuf si te muy lu tey man ngeen koy jëfandikoo te dee leen jëfandikoo li nga xam ne moom laa daganal te bàyyi fi lépp loo xam ne aramal naa ko kon li nga xam ne moo nekk ci kaw suuf si suuf si ci lu dagan du jeex du xaaj suñu borom subhanahu wa taala daganalal ñu ko waaye nag am yoon wuñ ko war a jaare ba mën a jot ca loolee mooy yoon wan mooy yoonu liggéey waaye yoonu xam yi nga xam ne moom la suñ boroom daganal ñuy euh, wuti loola di ko jëfandikoo waaye xam yi nga xam ne daf ko araamal te tere ñu ko euh, ñuy moytandiku yooyu bu baax a baax a baax baax ndax kat li nga xam ne mooy fàggulu euh, dagan ak sàkkulu lew di ko jëfandikoo mooy tax nit ki su jaamoo suñu borom subhanahu wa taala jaamu ga mën a nangu waaye mooy tax nit ki euh, buy sàkku xam-xam xam ba mën a barkeel man koo jëriñ waaye mooy tax nit ki ak dundam mën a euh, barkeel man ko amal njëriñ fii waaye amal ko njëriñ ëllëg yomal xiyam sëriñ bi tekke ne laa yan du jëriñ al ilmu xam-xam wala al baada du caageenu jaamu yàlla bil akali lil xaraami ci lekk lu araam ànda saada fa euh, sang ya sëriñ bi radiyallahu anhu nee na du jëriñ mukk ab xam-xam du jariñ boroom ak jaamu yàlla du jariñ borom mukk li fekk ki nga xam ne mooy fàggu xam-xam mooy sàkku xam-xam ba wala mooy jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu ngay dundelu araam kon nit ki li fekk mi ngi dundelu araam mi ngi dundeloo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko araamal daf koo tere ne na na xam ne euh, jaamu goo jaamu suñu borom subhanahu wa taala jaamu gadu nungu waaye jaamu yàlla balaa mën a nungu wala sàkku xam-xam xam ba mën laa jëriñ balaa mën a nungu dafa ànd ak lu dagan waaye dafa ànd ak lekk lu lew loo xam ne ah, suñu borom subhanahu wa taala moo la ko daganalal te nga mën war koo jëfandikoo moo tax mu ne ah, waxtaziru na ngeen moytandiku minal lesi ca la nga xam ne ay xantum wóolu ngeen bi kaw nihi ci ak nekkam alxaraamalu araam aw zanantum wala ngeen njortu ko sax nee na euh, na ngeen moytandiku bu baax a baax wépp ñam wala lépp loo xam ne da ngeen koy fàggu fàggu te xam ne lii lu araam la nee na loolu na ngeen ko moytandiku bu baax rawatina nag loo xam ne euh, lu lu ngeen jortu ne lii dafa araam sax na ngeen ko moytandiku rawatina nag loo xam ne lu araam la kon lépp loo xam ne moo araam ci ak fàggu na ngeen moytandiku loola waaye lépp loo xam ne sax da ngeen a njortu rek ne lii Euh, dafa araam nee na bu boobaa loola itam na ngeen ko moytandiku bu baax a baax a baax kon euh, li mu lay digal nga moytandiku ko mooy loo njortu sax ne dafa araam rawatina nag loo xam ne daf la wóor ne lii dafa araam moo tax mu ne waxtaziru na ngeen moytandiku minal la si ca la nga xam ne ay xantum wóolu ngeen bi kaw ni ci ak nekkam alxaraama di aji araam aw zanantum wala sax ngeen jortu ko ndax euh, comme ni ñu ko waxee léegi rek euh, biir doomu aadama bi lépp loo xam ne moom la cey dugal rek war naa doon lu ko leer ni lii lu dagan la lu suñu borom subhanahu wa taala daganal la waaye itam bala caa dugal dara fa mu ko fàggoo na xam ne lii fa mu ko fàggoo ko lew la euh, waaye fu suñu borom subhanahu wa taala daganal ñu man foor fa fàggoo la moo tax muy waxaat ci mu nawir ne laa tudxilil xaraama fil batni wala ma fihi subhatun balil xilla wila fakul xalaalan in aradta an tuti allaha wa rasula ya hadal muti bul dugal ci sa biir mukk euh, loo xam ne lu araam la waaye bul dugal ci sa lu lënt nee na sooy dugal ci sa biir day na nga ba dugal ci loo xam ne lu dagan la lu suñu borom subhanahu wa taala dagaral la su fekkee ne bëgg nga topp suñu borom subhanahu wa topp ga jariñ la wala nga bëgg a topp yonente bi sallallahu alayhi wasallam topp ga jariñ la kon topp yàlla topp ga di jariñ wala nga topp yonente bi topp ga di jariñ ñaar yooyu yëpp ñi ngi ko aj ci eh, ngay fàggu lu lew waaye di jëfandikoo lu lew loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo daganal muy kon ne ne wal tafu na doylu bi yu kiimu ca la nga xam ne da ngeen dëgërlu da ngeen dëgërlu asulba seenu seenu ndigg mina taami ca ñam wa li tutiyon ngir ngeen topp araba buur ba mais na ngeen doylu ñam ñam woowu nga xam ne mooy li dagan ba ngeen fàggu ko ba am ko su ngeen ko amee na ngeen ca doyloo li nga xam ne moom ngeen di téye seen kattan ba mën a topp suñu borom subhanahu wa taala waaye bu leen ca fuqule bu leen ca ëppal waaye na ngeen ci jël kem seen soxla rek ah, ndax li nga xam ne mooy ëppal ca waxoon nañ ko ci bind bi weesu la nga xam ne moom lay waral ah, ci ay gàkk-gàkk ah, bari na lool ba sëriñ bi radiyallahu ko limal nañu ko loolu moo tax mu ñuy soññ itam ci bu ñu fàggoo dagan lu lew ba mbar koo jëfandikoo itam ñu cay jëfandikoo kem li nga xam ne mooy suñu aajo rek waaye di ko jëfandikoo kem li nga xam ne moom lañ ci soxla woo bu mën a am kattan gu ñu mën a toppe suñu borom bi subhanahu wa taala ndax ne na inna ma naka aw ñam de inda akilin fa lekk ga maliix lu neex lay doon lu xorom lay doon lakin waaye nag yasiiru day mujj baadu ca ginnaaw lekk ga xaa itan di euh, génnaat xabiix di génn génnin woo xam ne génnin wu ñaawa ñaaw lay doon moo tax mu ne aw ñam de nit ki bu fekkee ne mi ngi toog di toog di jëfandiku ci aw ñam lekk ga di dafay neex lool waaye ginnaaw bu ko lekkee ba pare fa ñam wa di mujj maanaam fu bona bon lay doon ndax daanaka daf koy e, lu ci bëree bëri daf koy génn waat rek la ci yaram wi di soxla woo lay segg e, dugal ko ci biir yaram wi mu doon dret mu jëfandikoo ko e, mu man koo dundal leneen la nga xam ne baaxut da da dañ koy segg euh, génnewaat ko moo tax mu ne inna taama inda aakilin malih aw ñam de bu nit ki sukkee toog di ko lekk mën naa neex lool day neex lool itam lakin yasiru baaduha itam xabiix waaye nag ginnaaw bu ko lekkee ba pare lu ca ëpp ëpp day mujjaat doon ndesiit woo xam ne day génnaat rek euh, te génn wa mi génn génn wu ñaaw la kon moo tax sëriñ bi radiyallahu ne soo ciy jëfandiku na nga ci jëfandikoo kem li nga xam ne mooy sa soxla waaye kem li nga xam ne euh, mooy sa ajo kem li li nga xam ne mooy sa soxla waaye kem li nga xam ne mooy sa aajo mu ne wal ta wal tabi wantabihu na ngeen yeewu fii annal aada andaka cër ya gadan ëllëg tashhadu dana seere aleykum ci seen kaw fii ma wara daa ci li nga xam ne root na ne na yeewu itam ngeen bàyyi xel seen cër yi ak li nga xam ne moom ngeen di jëf ci seen cër ndax ceri doomu aadama day moo doon loo xam ne ëllëg yowmal xiyaam euh, lépp bépp cër lu mu mas a def euh, dana ko seere waaye bépp cer lépp loo xam ne mas na koo def fii ci àdduna euh, dana taxaw ci kanam suñu borom subhanahu wa taala seere ko kon moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu ne na ngeen yeewu te bàyyi xel bu baax seen cër yi ak li ngeen ci jëf ndax seen cër yooyu yuude ak li ngeen ciy jëf ëllëg ñoom ñooy taxaw ci kanam suñu borom subhanahu wa di leen seere bu fekkee da ngeen ci doon jëf lu baax ñoom ñooy taxaw di leen seere waaye bu fekkee da ngeen ci doon jëf ab safaan itam cër yooyu ñooy taxaw di leen seere te loolu alquran di leer naññ la ndax suñu borom subhanahu wa taala moo wax ci alquran ne yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yaamaluun maanaam bis boobu de mooy bis ba nga xam ni euh, euh, doomu aadama bu ne la koy seede mooy euh, aw làmmiñam ak ay loxom ak ay tànkam ñoom ñoo koy seede te nit dafa mën a lay ba nga xam ne bu taxawee ci kanam suñu borom subhanahu wa taala bu fekkoon ne dafa jël aw làmmiñam rek mën naa miim ba miim loo xam ne defoon na ko waaye ci kanam suñu borom subhanahu wa taala kenn ku suñu borom subhanahu wa taala day wax say cër lépp loo xam ne cër bi defoon na ko moom moo koy waxal boppam su ko defee boobaa nag euh, suñu borom subhanahu wa taala nee na damay kaste seen làmmiñ yi téye seen gémmiñ yi boobu boobaa cër yi ñoom ñooy waxal seen bopp kenn ku ci ne li nga xam ne moom la defoon moo tax mu ne al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibun nee na bis booba day ci la ñuy kaste seen gémmiñ yi téye seen làmmiñ yi waxloo seen loxo yi waaye waxloo seen tànk yi ci lépp loo xam ne mas nañ koo def maanaam lépp loo xam ne euh, sab tànk mas naa dox jëm ca tànk ba mooy wax ne dox naa jëm ci barab sàngam lépp loo xam ne sa loxo bi mas naa euh, mas na koo jëf loxo bi mooy wax ne man jëfoon naa nangam ci bis sangam ak euh, ci nangam laa ko jëfe kon bis booba mooy bis bi nga xam ne suñu cëri moo ñuy waaye suñu borom subhanahu wa taala day téye suñu làmmiñ yi ba nga xam ne loolu mooy tax miim du fa mën a am ndax cër yi moom bu boobaa la ñu def rek moom la ñuy wax euh, loolu moo tax euh, sëriñ bi radiyallahu anhu di ñu moytandikuloo cër yooyu bu baax a baax ndax bu ëllëg